waaw mais limu mu liggéey ba si fii amatul leen lu koy conseil Alioune sey deug la nak moko jiru jiitu ci laamu mais xale la du mak du mak, bu tax ñi wax mak du xale bu tax ñaa xale mais judduwul te ku na xam ne sey bu de beure do rek mbindeef da ko ci aduna ñak sans lañu wax mais yalla ko yalla may ndam ci bàq Seydina muhammad waaw loolu luñ gëm la mo satias ma ngi lay nuyu. waaw ñi ngi lay fayat bok <laughs> <laughs> sandu baba tay dafa melni 100 bi ngeen indi de yag nañ ko andi boo xoolee ba la gay da ngay gis ñëpp ñew ñëw Pampas la Daguerre gis na bu mujju bi ñëpp tew sama bon bare salam même chose ak keneen ak keneen ñi bari fi ñëpp fi xébaluñu fi kenn bisam ku ci am bis ñëpp japp suñu ñoo ñew ba ci ñoom yu ci yo xamanteni ni judduwuñu sax ni ngi bari ku ci am bis tam ñen non la soxé suñu dal xéne nak dina am bis yo xamanteni ni day tombeek ni ko doom jot du mën ñew wala ma am yite yu ko téye mais wax deug yalla fi ñu ñëpp yëgante nañu xamante nañu xam ngeen ki ngeen di bëreel ñak jàng wa xam nañ ko baax loo ko di loo digal Alioune Seye ci combat bi. Alioune Seye aw ma nu ma koy digal xam na li mu war a def xam na li mu bëgg gënu ma koo gën a gënu ma koo bëgg ndam li te géej waaye kenn mbëri ko bëgg ndam li maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam ci bàkk Seydina Mohamed. boobu ba léegi ga euh, amateurs yi ñu ngi xaar combat Sa Thiès ndax ku ne xam na ni Sa Thiès combat am grand grand rendez-vous la événement la Sa Thiès fan la toll. waaw ñu ñu suñu entraînement di liggéey rek ki ñu yàlla booleel nag dinañ bëri waaw am nañu yàq mi nag incha allah xëy na lépp la ñuy wax mais am nañu yaakaar ren dinañ bëri incha allah. ba ba léegi amateur yi naan Sa Thiès Reug Reug ñi naan Sa Thiès Garga Anta tey ji adversaire ma la limal tey ji boo ci doon euh, jàkkaarloo ak kenn kan nga ci bëgg a jàkkaarloo. fekkee ñoom ñëpp mën nañoo bu ñu bëree kalaaf suñu biir mën naa nekk ñun bëre boo ñu tax a jug ci yàlla boole ci ñoom ñëpp ma bëre.